internautes yi nga xamante ne saa su ne yéenay wéy di topp fi nga xamante ne moom moo di ci yi nga xam ne ñoo a fës uh, ci internet bi rawatina rek ci uh, di xamal ne deux immeubles uh, Doro Gueye ak ki nga xamante moo di ci soxnam la ñu daal di saisir nag jamono gi daal di koy mettre en vente nag mu mel ne rek ñaari immeuble ak benn boo xam ne rek soxnam mu ko daal di moom mu nekk nag coow lu ne kur bu ñu sukkandikoo Doro Gueye nag jotoon nañ ko fay teg loxo ci coowal mission secret foofee nga xamante ne rek moom moo di ci ancien piste bu aéroport boobee nga xam ne moo nekkoon ci diwaanu yof nag mu ci doon def ay mission secret ci nguuru Macky Sall ku xam Doro Gueye xam ko moom mi nga xam ne rek moom moo jiite plateforme boobee nga xam ne rek moom moo di xippil xool moom Doro Gueye l'homme d'affaires nekkoon koo xamante ne rek yàgg naa ànd ak ki nga xamante ne rek moom moo di am Macky Sall ci diirub 12 ans Doro Gueye buñ ko waxee xel yëpp dem ci ki nga xamante ni rek moom moo di euh, borom këru euh, Clara waaye itam nekk borom kër ki nga xamante ne rek moo di ay Aïdara ak ki nga xamante ne moom moo di Fatou moom mi nga xamante ne moo di awam yor agent euh, de voyage yooyu nga xam ne rek mi ngi fi nga xam ne ci diwaanu Sénégal doore gée nag jamono gii ci sall adxaala daal di nekk selon suñuy confrères yoo xamante ne rek ñoom ñoo koy daal di xamel naka tey li gën a fës ci xëttu yéenekaay yi doore gée lañ daal di xamle ne rek jamono gi lépp loo xamante ne jëm na ci ay bien am jamono gi nag dañ koo daal di saisir nag yoon da koo daal di teg loxo ndaxte kat bu ñu fàtte ni door jàngoro dañ ko daldi placer sous contrôle judiciaire mënta génn fi nga xamantene moy mim rew way itam lepp lu muy def rek amana à tout moment mën nañuy nangu ay bien ci bien yoy sax mom Doré Gueye ka détient une propriété avec son épouse ba tax na jamono gi nak dañ koo fas yéene rek saisir ba tax ne sax ci lépp loo xamante ne rek jëm na rawatina ci ñi nga xam ne moo jëm ci wàllu mutuelle alliance de crédit et d'épargne de nag jamono gii nag ñoom ñoom ñoo daal di réclamer ci ki nga xamante ne rek moom moo di l'homme d'affaires Doro Gueye mu fas yéene leen rembourser li nga xamante ne rek moo di seen i koppar gu takkoo takku des centaines de millions de francs CFA lim accept mooy itam jamono gii nag ma ngay wax ni Doro Gueye nag mbir yi dinañ ko daal di jaay wala sax ñu jëm ci li nga xamante ne rek moom moo di juge bi foofee nga xam ne rek moom moo di ca Euh, tribunal wala sax ñu juge euh, wala sax ñu jéem a def kem kàttan euh, fas yéene saisir yi nga xamante ne rek moom moo di yilee immeuble nekk foofee nga xamante ne rek mooy jëm ci wàllum appartement boobee appartement bi nag bu ñu xaymaa rek nee nañ ñi ngi koy jaayee ci prix bu toll ci vingt et de francs CFA maanaam mu di ñaar fukki millions ak benn ci suñuy koppar lañ fas yéene jaayee li nga xamante ne rek moom moo di yilee appartement nag ki ñaari immeuble yi mu nekk nag koppar gu takkoo takk boo xamante ne rek ki nga xamante ne rek moom moo di Doro gay nag mbir mi nag ma nga

le 10 décembre ci kàttanu suñu borom magasin boobu waaye itam ak appartement boobee nga xamante ne rek Doro Gueye bu ñu xaymaa sax wala bu ñu sukkandikoo sax amaana ñàkk ko moo gën a gaaw rawatina nag à tout moment ndax kat le quotidien d' information moom moo ñu daal di soufflé li nga xamante ne rek moom moo di bile xibaar mu ngi daal di xamal nag prix bi ak bien yooyu yëpp bu ñu ko daal di respecté mi ngi xayma lu toll ci 12 millions de francs CFA waaye itam jàpp ci 30 euh, jàpp ci 21 millions ak 350 mille loolee lépp nag ay ponk la yu solo yoo xamante ne rek. mbirum Doro Gueye nag jamono gii nag dafa mel ne ubbiwaat yeneen euh, dossier mu mel ne rek histoire Doro Gueye l'homme d'affaires bi nga xam ne rek dañ ko daal di placé euh, sous contrôle judiciaire ak li nga xamante ne rek rawatina mu jëm ci wàllum escroquerie foncière pour plus de milliards de francs CFA moom euh, Doro Gueye nag jamono gi nag mu mel ni rek dafa nekk ci guddi gu bët setagul ba tax na rek ak lu ci mënti am rek bu ñu sukkandikoo moom Doro jotoon naa def ab diir foofee nga xamante ne moo di ca diwaanu kaso waaye itam gannaaw bu mu génnee boobee ba léegi nag mu daal di am liberté le vingt 28 juin bi ñu génn waaye mu mel ne rek jamono gi mbir yi dafa mel ne rek dafa daal di lëlmbaju wala sax enquête bi dafa daal di ubbeekuwaat jëmale ko ci ki nga xamante ne moom moo di l'homme d'affaires rawatina rek li nga xamante ne rek moom moo di ñaari immeuble yi nga xamante ne moom Doro Gueye ak soxnaam am nañ ko ñu war ko metre en vente ci nu mu gën a gaawee pour amaana sax mën a fay li nga xamante ne moom moo di entreprise bi lee koppar gis nañ talaata gi passé la ñu demoon foofee nga xamante ne rek moom moo di ca diwaanu tribunal ñu dàq ko nag ba li nga xamante ne rek euh, le 10 euh, décembre ci kàttanul suñu borom ñu fas yéene xool ak ki nga xamante rek moom moo di Doro Gueye fan la waan leen di mujjee fan la fas yéene mujjee ak i gëtam mu mel ni rek mbir mi nag lépp lu ci mënti am rek gis lépp lu ci mënti am rek mu mel ni rek ki nga xamante ni moom moo di Doro Gueye dañuy daal di topp mbir mi waaye itam ñu sukkandikoo rek ne ki nga xamante ni rek moom moo di euh, Doro Gueye euh, moom moo di borom këru rek ay dara ñu gis ni fan yi rek daal dinay féete li nga xamante ni rek moom moo di ses 24 ans waaye itam ki nga xamante ni moom moo di Clara ca wet ga itam ma ngay waajal événement bu doy waar mu di l' de l' année comme ni mu koy tàmm di defee saa su nekk rek fas yéene tëgg ki nga xamante ne moom moo di Youssou Ndour mu nekk nag événement boo xamante bu am solo la Doro Gueye coow li lan moo ko waral lan moo ko sabab loolee lépp la ay laaj la yu am solo yoo xamante ne askanu Sénégal saa su nekk dañ koy laajte wala naam sax ñenn ñu bari naan kaawal Doro am na ñu nekk ci ginnaaw ba tax na rek ak lu ci mën ci am Xibaar TV HD dina leen mu nekk nag koppar gu takkoo takk boo xamante ne rek à tout moment mu di tey mu di ëllëg wala gannaaw ëllëg mën nañ koo jaay ba tax na rek ak lu ci mën ci am rek ñi ngi jàpp ne agence bi mayul doora dara ndaxte kat lenn la ñuy sàkk mu daal di leen di delloo koppar gi mu gën a ba tax na sax xibaar fii la koy daal di yemale lépp lu ci ruusandiwaat comme information phare ñu daal di leen koy andil yéen mbokk internet yi nga xamante ne yéen a ñuy safoo di ñu bàyyi xel di leen wax saa su nekk rek way leen di partager ak abonné fi nga xamante ne rek moo di xibaar TV HD cant ngërëm ñel na leen